Touba dëkku président de la république la njabootu président de la république ñoo fi nekk ku ne xam na ni assainissement bi lim ci def ñu doon am ndox ba génn seeni kër li koy firndeel rek mooy bu yàggutoo njaay napp bii nga xam ne mi ngi Touba sonal néew ju doole lool sonal askanu Touba lool te ku jaaxle ci Sëñ ngay jëm ngi tàllal ko loxo ngir mu wallu la président de la république ba mu yëgee coono yooyu dafa décaissé 47 milliards wala lu ko ëpp teg ko ci taabal ji ngir ñu dégager ndox moomu ba tey ba ña fa dëkkoon mën a am jàmm mën a am tranquillité mën a nekk ci dundu gu noor nekkoon. kon loolu rek jar na bu woon dara sax loolu rek jar na sargal seen bopp ci yëpp yi te xam ne bu tegu ci mbartal la. Cheikh Mouhamadou Mountakha du teg loxo koo xam ne wala du ñaanal koo xam ni day dellu gannaaw waaye day jëmale kanam ci biir loolu nag ñu ngi tàllal loxo fépp fu mën a nekk. ci Touba ak biti Touba tey wotee Touba ñu ngi lay ñaan jour élection yi nga woteel benn Bokk Yaakaar ñu jël ndam li te loolu mooy suñu yitte tey mooy suñu yitte ëllëg suñ ngalas jigéeni Touba jigéeni Guédé am nañ ci yow yitte am ci yow yu yaakaar anda ak yow fas yéene laa fal waaye buñ la falee itam na nga xam noonu nga bokk ci dëkk bor moom yow mi ñu war moom Guédé ci nga bokk nanga xam ne kon waa Guédé ñu lay bàyyi xel bu baax a baax ndaw yii nga àndal ñu accompagner la itam alu Dakar yi njëkk seen bopp yi na nga xam ni tam yow la ñu àndal waaye itam na nga leen bàyyi xel ci lépp loo xam ni luy jëmee seen yitte kanam la. jeunesse bii fi nekk tamit di liggéey fii ci biir Guédé ñooñu itam soxla nañ la waxtaan woo xam ni buñ fi jógee danañ ko am ak yow ngir mën a yaatal liggéey bi moo tax kon maa ngi kàddu yi di sant di gërëm. say galas ñi toog ñëpp ay subordé ñu gëm Serigne Touba ñu am dëkk bi xam dëkk bi tey dëkk bi dara ñu leen dem Dakar ak ñii ay ndaw yoo xam ne dañuy leb ay oto si banque bi ñii seen yaay teg si natt seen papa jaay am ay oto yoo xam ne ay 400 koy wax ay ay ñu liggéey Dakar Touba dama ko dikk ñu naan ay jafe-jafe yu métti su mbam dimbali ñu bunt bi sax ubbeeku na waaye sëñ Bakary Bousso mi si la jaar. ñu toog président Macky Sall mu boole ñoo ak président Sakanté te jàpp naa amatuñ benn jafe-jafe si yoon bi dara jafe-jafe amu yoon bi fi ñu jàpp bàyyi nañ leen ñu ngi dem jàmm ñoo si jàmm waaye seen mbir mu nekk defam am lu ko lu ñuy ëpp importance ndax oto bu ne mooy sa kër sa njaboot président Macky Sall bi ñu toogee dalal suñu xel waaye dañoo dig ay licence licence yooyu avant muy ñëw avant ñuy wax licence yi parrainage dafa lu mën te ñu amul lu Touba gi kon bëgg nañ jàpp licence yooyu mu génn daal daal ndax ñun taxaw nañu engagé wu lañ nga waxoon dinañ ko def ndax kus si ne am nga soxna benn soxna ba ñaari soxna ba ñetti soxna ak i doom ak njaboot ak waajur kon jàpp naa kër gi yor oto biir kër gi di dem ko dikk foog naa luñ ko may waa njaboot dañ ànd ak moom si loolu ma di la xamal ñu rafetee suñu njort bu baax bi ñu invité nga tëdd liste ndax Touba gone ñëpp xam nañ la li xam si liggéey si mënut ma teg si bopp bi jàpp nañ ni bu leen fi déggee ah rafet suñu njort bu baax a baax lañ mën a yow rek lañ mën a jooytoo ñun li ñu waxoon ak Macky Sall ñun lépp ñu ngi ci parce que parrainage jox nañ ko 665 bi mu ñu recevoir King Fahd Palace ginnaaw ba mu recevoir ñu pale te lépp jaar ci loxol sëñ baaxe Bousso nga xam ni lépp ci loxoom la jaar amoon nañ ay jafe-jafe nag ci yoon wi jafe-jafe yu baree bari sax jàpp nañ bi suñuy oto pili da ay mille et quelque te mënuñu cee jot booba ñun ñi ngi toog fii ci dëkk bi ginnaaw yàlla moom mii moo jóg di ca ay jéego ba président woo ñu bi mu ñu woo pale moom sëñ Baaxe bu bi mu ñuy woo nag ci la ñu président woo général Moussa Fall waxtaan moom ci loolu bañ bàyyi oto yi waaye sëñ bi ñu di la xamal ne la ñun ay ndaw lañ yoo xam ne amuñu lu dul sëriñ Touba te ci dëkk bi lañ dëkk di ay xale nangoo liggéey sàccuñu fenuñu defuñu lu bon ñun ñi ngay gis ñëpp kenn ku ci nekk am na soxna am na njaboot plus de deux cent et quelques bu buñ ko doonee muy ay chauffeur di titulaire xam nga ne oto bu ne chauffeur bi mënu koo yóbbu bis bu am na siiru deux cent personnes yooyu kon dèjà am nga yeneen deux cent nangam personnes yoo xam ne ñooy siiru da ngay raxas soo demee soo ñëwee Touba da ngay raxas soo demee Dakar da ngay raxas yaa ngi créer emploi kon ñun dañ ñu war a bàyyi xel te nag sañ nañoo wax ndax fii lañ dëkk ci dëkk bi liñ am lépp it lañ ko ame waaye bañ xamee ba léegi nekk fii ci Allo Dakar nga xam ne daanaka def nañ juróomi at fii Allo Dakar mu suñoo gis ci suñ bopp suñ bopp ci dëkk bi ci benn responsable boo xam ne fal nañ la fi nga dëkk bi te ñun ñu bokk ci liñ am liggéen nañ ba ñun suñ jëm bopp ñoo doon dawalaat di bokk ay teg ak di teg ay natt ba am suñ yëfi bopp kon nag ñun protéger ñu yomb ñu jàpp yéen nii sëñ Baaxe so bu ñu taxawee fii di wax war nañ koo delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax a baax waaye moom war na xam ni waaw euh, sëñ sëñ Baaxe war na xam ni ñun ay gor la ko séqal yoo xam ne luñ ko wax def nañ ko te ñun doonuñu ay ay ay ay ñoo xam ni sàmmuñu seen seen kàddu ñun suñ kàddu gi lu ñuy sàmm la parce que tey ñoo yor suñ bopp ñooy dundal suñ bopp bu ñu waxoon bu leen demati Dakar teelu ñu aloo Dakar sax fii ci dëkk bi yor nañ suñuy oto mën nañuy taxi te danañ am dépense te xanaa loolu kenn duñu ko tere leneen la ca tegee mooy li ñuy dagg ci commune bi pour mën a liggéey fii muy droit suñ ko daggee fii dinañ toog ci dëkk bi di liggéey duñ amat kenn jafe-jafe waaye lii ñuy def nag di dem Dakar Touba ñëpp ko soxla sëñ baa ngi nii toog dañuy jël ay yóbbanteem Dakar di ko indil fii mu ñuy jox yóbbante ñu koy jël fii di ko yóbbu Dakar mu ñuy boole ak njabootam ñu koy yóbbu te mënoon nañoo mel neneen ndax am na ñeneen ñu mel neneen mais fii gisoo fi kenn koo xam ne sax sol na sol bu débordé boo xam ne da nga ni kii da nga ko xeeb wala nga ko léegi leneen la ca tege mooy tey jii bu ma la doon wax limal di la mën naa laa limal mille personnes yoo xam ne ci ñun la ñuy ndax boo amee nday am baay am soxna am doom doon deux cent personnes ki lay raxasal ki lay station mais loolu luñ bëgg ñun ñu ngi ah suuf nañ foofu mais na nañ ñu jàppale te li tax ñuy wax lii nag sëñ bi mooy dañoo xam ne mën nga ci dara ndax yow la président élu ci département bi nga nekk bi ñu jàpp ni loo ci loo ñu jàpp ni ñun liñ bëgg mën nga ci dara te bëgg nañu soxla nañ ko ndax moo ñu waxoon mën nañoo am licence privée licence privée boobu nag ba léegi doxaat ci benn jéego ñu ngi nii di doog a ñëwaat ci yow di ci wax pour jëm waaye ñu di la xam ne daal am nañ ci sa jëmm ji yaakaar tey ñaan suñ borom àggale ko barke Cheikhul Khadim Serigne Galas damay sant yàlla bi ma taseeg yow fii tey muy première sortie bu Allo Dakar boo xam ne def nañ ko communiqué ko siiwal ko mu siiw lu tax ma ne damay sant yàlla mooy président Macky Sall ba muy wut état dama ànd ak moom ak délégation bi Basirou Diagne mën na ma seede madame Ndiaye mari Mariama Diallo mën na ma seede ñu toog ci sa waajur wu tell wa sell wa yàlla na ko yàlla dolli leer mu ne ko li nga bëgg de boo ko fasee fii te muy dëgg ci yow te gën ci Sénégal suñ borom dana ko nangu. firnde jëm mooy élection yañ ca teg ci la président Macky Sall jël état bu Sénégal kon boo ñëwaatee fii ñu dajeeg yow damay sant yàlla di am yaakaar. Allo Dakar demande sociale askan bi ñoo ko bëgg. oto boo xam ne ña koy ña koy jël ak ñi ko soxla mboolem autorité yi nekk ci biir dëkk bi soxla nañ ko ba kër xalif général di murit fii laa koy waxee damay transporter bay transporter waa këram ak i soxnaam di transporté bay transporter gouverneur yi ak préfet yi ak commandant yi nekk ci biir dëkk bi waaye yéen sëriñ sii doy ngeen ci sëriñ Baxiir mii ànd nañu ñu jàpp ñu 6 ci ngoon 16 heures ci ngoon ba 19 heures booba yoon bi taroon na lool te metti te booba man ak moom xamante wuñ liggéeyaguñu kon Allo Dakar demande social la suñu li ñuy contribuer ci askan bi ak ci autoroute bi ak ci carburant bi loolu dem nañ ba état senegal xam na ko 200 oto oto bu nekk bu xëyee sol 25000 gasoil dagg 11000 péage yoo xam ne ci rapido la ko dagg wala ci carte xéewal kooku boo ko dee xool ça fait trois milliards et quelque par an kon paiement kenn mënuñu ci keroog bi ñu président de la république recevoir ma ne ko man dey produit APR la ndax je me ne jour bi ngay dem di décrocher ji Ndonga Ndiaye ci jeunes yi àndoon ak yow la ndax sama yaay Mariama Diallo moom ma toqantal ci biir parti bi keroog sa pick bi taxawoon ci àll bi man mii ci ndaw ñi wàcce woon di ko garder ci laa bokk Basirou jaañ man na ma ci seede kon produit APR la waaye dama bëgg kenn ku bokk ci waa APR di def nii ma def mooy fexe ba kuréel gi nga àndal ndaw ñi nga àndal nga fexe ba waxtaan ak ñoom wan leen aw yoon teg leen ci dëgg ba ñu agsi ba li ñu war a jariñoo ci réew mi ñu jariñoo ko ay fukki junne ak ay ñaar fukki junne indi wuñu fi de programme bu baax moo ñu fi indi président ba ma ko waxee loolu dana ma loo bëgg ma ne ko ñetti mbir laa bëgg nga bàyyi oto yi ñu jàpp ndax yaay président de la république sa yërmande àgg na ci nu le nit day def crime nga xëy gracé ko mu génn mu ne ma ak ban ma ne ko nga wutal ma licence waaye loolu procédure la boo xam ne gaaw du tey tey tey fii nga toog mu ne ma ak ban ma ne ko damaa bëgg nga alléger yoon bi ba jàmm am ci yoon bi xale yi di liggéey ndax kilifa yii ñuy wàcce ci biir autoroute bi ñu am seen i rendez-vous ñii jëm hôpital ñii di ay kilifa yoo xam ne amaguñu oto wala seen kilifa laa ñoo leen di yónni suñu leen suñu leen wàccee loolu day répété wu ci biir système bi ci Touba mu ne ma ñett yëpp danaa la ko defal fii nga toog ba ma fay laataa jóge ñett yëpp def na ko benn rek moo des mooy licence bi suur boobu jël na téléphone woo ministre de transport fekk ko muy défendre projet de loi bi nekk assemblée nationale mu bàyyil ko message ne ma Cheikh ba sëñ bu Boussa yow mi ma indil ndaw ñii àndal ak ñoom nga liggéey ak ñoom ba li ñu bëgg ñu am ko. nee moog seen mbas benn la. nee mooy lu jàppale. département de Mbacké. département de Mbacké. nee sëriñ Abo rakam ju baax ji dina ko jottali kàddum yëpp. waaye eh, bala may waaye nee bala mu koy waxal. damay sant sëñ nee day sant sëñ Abdou Baaxe mii. ci nee ci fànn yëpp. ndax taxawaayam. ndax taxawaayam. bu rafet. bu nee ci wetam. di soxna Mariama Ndiaye. nee di sant soxna Mariama Ndiaye mais. cant koo xam ne. nee cant koo xam ni. am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. moom moom ci Macky Sall. nee moom ci Macky Sall. moom ci APR. moom ci APR. xanaa ñaanal ko rek. xanaa ñaanal ko rek. waaye. waaye. fii. fii. la ci parti bi. la ci parti bi. ci fànn yëpp. ci fànn ci dajul amul. nee lu ci dajul amul. sëriñ bi ne da lay ñaanal yàlla suñu borom. yàlla na yàlla mottali tolluwaay yi. ah ne ca rafetale ci kanam. di nuyu Bassirou Diagne. nee di nuyu Bassirou Diagne. wax na ma léegi ne yéen ci sonam ngeen wax na ko léegi ni yéen ci sonam ngeen bokk. suñu xel gën cee dal bu ah, sëriñ bi ne xelam gën cee dal bu baax. ndax Bassirou Diagne. ndax nee nanu. xanaa léegi mu mat ay xanaa nee léegi mu mat at yu bëree bëri. sama rakk la. nee ca la. sama xarit la. nee xaritam la. ma yëg la. nee ku ko yëg la. nee ku ko fonk la. lii charge bii ñëw ci kaw. nee charge bii ñëw ci kaw Mbalay sa. 2022 nee 2022 bii. mii. ci bànqaas boo xam ne. nee na ci bànqaas boo xam ni. yàlla rek la ñuy seereel. yàlla rek la ñuy seereel. sunu cant moom. sunu cant ci moom. bëgg nañ ñëpp yëg ko. waaye bëgg nañ ñëpp yëg ko. ci taxawaay bu rafet. ci taxawaay bu rafet. lu mu yittewoo. nee ci lu mu yittewoo. suba ak ngoon. guddi ak bëccëg. guddi ak bëccëg. waaye rawatina. waaye sëriñ bi ne rawatina. lépp lu xam ni. lépp lu mu xam ni. day jëriñ coalition bi. day jëriñ coalition bi. di jëriñ di jëriñ département bi. amu ci noflaay. amu ci noflaay démb rek. sëriñ bi nee démb rek. nee doy na ci firnde. dem na mission boo xam ne ñoo ko ànd. nee dem na mission boo xam ne ñoo ko ànd. daanaka ba 4 heures nee daanaka ba 4 heures du matin. ci loolu rek lañ nekk. sëriñ bi nee ci loolu rek lañ ne. te dara warulu ko. nee ca dara warulu ko. bëgg lii ñu jëm. jëm. ci taxawaayam. ci taxawaayam. ak ñi mu àndal. ak ñi mu àndal. suñu borom defal ñu ndam. nee suñu borom ñu ñëw fii tey fekk si sëriñ bu so ci programme bu am solo boo xam ne ñun ñëpp xam nañ taxawaay bi nga xam ne am na ko ci jeunesse bu Touba. loolu waral sëriñ bi sol aw dàllam ñëw fekk si ko fii tey ak chauffeur yi nga xam ne ñoom la ñuy wax GIE dem ak jàmm dikk ak jàmm di alu Dakar sëriñ bi dégg na programme yoo am solo yi nga xam ne wax ngeen ko fi li ci ëpp solo ci programme yi sëriñ bi jël na note yi li ci topp rek mooy sëriñ bi mi ngi leen xamal ne. mbir mi seen yëfi bopp la parce que la jeunesse de la dafa am responsabilité bu rëy rëy ci Sénégal waaye am responsabilité bu rëy rëy ci biir Touba rawat na ñun ndawi ndax ñun ay espoir lañ ci Sénégal wane ngeen ko ci seen solin wane ngeen ko ci seen doxin wane ngeen ko ci ay seen waxin ndax yiw gi ma gis ci ay safoori Touba gis ko ci taxawaay yi nga xam ne am nañu ko ci seen doxin ak ci seen waxin loolu yaakaar naa war na ne espoir lañ ci Sénégal yaakaar lañ ci loolu nag loolu nag loolu nag tax na président de la république monsieur Macky Sall bàyyi leen xel ci yu bëree bëre bëre bëree bëre bëri ku ne gis na stratégie yi mu def ci lu jëm ci ay financement boo xoolee li mu dugal ci dëkk bi ci ay financement ci Touba amul benn dëkk bu mu ko dugal ci Sénégal Touba président de la République dugal na fi Prodac bu Mambay Niang dugal na fi Moustapha Diop mu ñëw ak ay financement am dugal na fi Segam familia dugal na fi lu mel ne promise finance islamique boo xam ne amul intérêt dugal na fi lu mel ne DER mais il faut ñu comprendre yooyu yëpp président di ko def lii sabab bi ngir ñu mën a dox jëm ci loolu wala ñu mën cee jot suñu wàll sabab ba ñun ñoo koy defal suñu bopp faaw ñu nangoo dem ci tribunal yi yóbbu suñu ay kayit wut suñu ay GIE wut suñu ay entreprise wara nañ ñun booloo nañ nekk benn ngir mën a suqali suñu gox booloo nañ nekk benn ngir jot ci yóbbal yi nga xam ne président de la république na ko ngir dimbali ndaw yu dëkk bi. kon loolu dama leen ci sonn rek waaye sëriñ bi gis na seen ay programme bopp yi nga xam ne am ngeen ko jël nañu notes yi def nañu ko bu ngeen paree ni ngeen def mooy seen programme da ngeen koy def ci seen fichier fichier d'entête bi nga xam ne ci ngeen tijjee seen GIE ngeen wax li ngeen bëgg wax ni ngeen ko bëggee ak fan ngeen ko bëggee ngeen jël ko yëkkati ko jox ko sëñ bi sëñ bi teg ko ci loxol président de la li ngeen bëgg mu ko beneen bi ci topp nag mooy bi ci topp mooy boo xoolee jàppandal gi leen président de la république defal ñun transport dañ ko war a fësal lim ñu dimbalee ci ay tali dimbalee ñu ko ci lu jëm ci ay yoon yoo xam ne lu mel ne autoroute Ila Touba rek buñ ko tegee baaraam mu raw ci ñëpp ndax projet bi ëpp doole ci état am projet bi ëpp doole ci ak nguuram Touba la ko jëmee muy autoroute Ila Touba te suñ Touba moo ko ñaanoon ci Matlabul Fawzayni boo demee ci moom loolu foo sëy ni am na benn bayit boo xam ne sëñ bi day wax ba yàgg mu ne yow suñu borom nag ma may buntu xéewal boo xam ne ku dugg biir Touba ci ngay jaar ngir mën a dugg Touba loolu président de la République Moussa Macky Sall moo ko réalisé beneen bi ci topp gis ngeen réalisation yi am solo yi mu def ci biir dëkk bi président de la République fi mu teg dëkk bi teg fa Serigne Touba teg fa Cheikh Mahamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi n Serigne Touba ñëpp teg nañ ci seen bët nañu présider wax ci loolu sëñ Mountakha kenn gënu koo bëgg président de la République Moussa Macky fi mu ko teg ñëpp gis nañu ko boo xoolee discours am li ëpp solo ci ay discours am wax ne ko xeebu naa ci ñaanal la waaye maa ngi lay boole ak Serigne Touba mi nga xam ne moo am ak ñaanuk boppam kon loolu day waaye na joxoon nañu li ñu war a doon kóllëre ga fi nekkoon démb diggante président Senghor ak Serigne Fallilou Mbacké mi ngi fi kóllëre ga fi nekkoon démb diggante Serigne Abdou Lahad ak président Abdou mi ngi fi kóllëre ga fi nekkoon démb diggante président Abdoulaye Wade ak ak Serigne Saliou mi ngi fi. kóllëre googu itam nag mooy dox ba tey dox diggante ak Cheikh Mahamadul Muntaxa ak président de la République Moussa Macky Sall. loolu loolu dañoo war a rek di dox te bañ di bàyyi xel wax yi nga xam ne dañuy yàq nit ñi dañuy yàq ñi ngi influence xelu nit ñi. li ñu njëkk def mooy surtout dañuy fexe ba dugal ji bopp nit ñi na bopp ndaw yi ngir ñu mën a ñu ñu bañ a gëm genn kaddu wala ñu bañ a faale kenn wala ñu def ay violence di yàq. ñun bu ñu dox ci loolu ñun politique bii ñu am nañ ko def ci politique gu l'islam nañ ko teg ci yar ak teggin bu ñu xuloo bu ñu xeex nañ indi président de la République li mu def ñu teg ko ci taabal ji bu ñu ko tegee ci taabal ji nit ñi gis ko danañ ci raw ñëpp li ci des nag mooy diggante Sëñ Touba ak Cheikh muy Cheikh Mahamadul Muntaxa ak président de la République président de la République Moussa Macky Sall mbërum Serigne Touba la mbërum ak Cheikh Mahamadul Muntaxa la mbërum Serigne Touba yàlla bind mënu koo daan ma ngay takk ay ndombaam ca pays diiwaan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala